ak waa dëkk bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw dina leen xamal ne ñëw nañu fii tey ci dëkk bi ñuy wax Diourbel mu nekk ci commune wu Fass li nga xam ne ne moo ñu fi tax a ñëw tey moo di programme xur bii nga xam ne nii dafa dem bay bëgg lekk li nga xam ne ni mooy sunu dëkkuwaay muy si environnement bi xam ne nii neen moom mooy ki nga xam ne ni moo ko war a liggéey te yàlla dimbale ñi nag wax dëgg yàlla bu ñuy sabablu doom yoo xam ne nii dañuy la gëstu di liggéey yàlla sabab dogal ko si ñuy doom mooy ki nga xam ne ni mooy ki gagné sanc bi muy war ko liggéey muy baabu Khady Dieng ñu ñaanal ko yàlla jàppale ko ci may ko ci ndam ba lépp loo xam ne nii bëgg na ko ci mu am ko ci. Euh, xëccoo ci misaal mu gagné ko loolu li ñuy def rek moo di ndam la ci ñun ndam la ci moom kon loolu mooy li nga xam ne ni mooy ñu fenn tey ñu fas yéene jàppale dëkk bi ci xur bii nga xam ne nii moo nar a lekk euh, li nga xam ne ni mooy suñu dëkk waaye te loolu nekk loo xam ne nii xas nañ fi dëkk dootuñu fi mën a jog jàppale pour defar point bi ba ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee yàlla jàppale ñu ko tàmbale fas nañ yéen tàmbale ko bisimilah rahmaani rahim yàlla mi nga xam ne ci alhamdulilah rabbil alamin ñun ñëpp ñu bokk fekkee am na yeneen ñu ma ci bëggoon a wax na waaye xam naa ne comme temps bi dafa xaw a gàtt léegi may ma la ko foofu yooyu yëpp mooy nit ñi nañu am fulla ak fayda xam commune Fass Cekkeen 2009 la judd réalisation maanaam am am bi nga xam ne ni maire El Hadj Mouhamed Dieng dugal na ko ci biir commune bi loo xam ne ci alal ma la wala ci ay partenaire yoo xam ne ni ñoo ko jàppale moom dukk yi nit ñi am fulla ak fayda lu jamono ji yàqu-yàqu loolu buñ leen ci jël da ci yóbbaale nañ xam li am lan la xam li muy liggéey xam fu ñu koy liggéeyee ñu nit ñi ngëb ko ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a ngëbee ndax suñu njëriñ tey la suñu njëriñ ëllëg mi nag jamono ji wax ji dafa bëri waaye ñun nañ xam li ñu am mooy lan ndax yaakaar naa ne tey bu ñuy wax ci commune de Fass Cekkeen ndox manqué wut fi machine yi wal li fi ñëw bëri na machine soq li fi ñëw bëri na machine dégg am na fi machine courant am na fi ay centre de salaire am na fi centre dëkk yoo xam ne ay centre de salaire am na fi yoon am na fi dine dispensaire am na fi hôpital yëpp am nañ ay euh, ambulance kon te bi amee juddu ak léegi yàggut kon nañ xam ne commune bi ñi ngi liggéey te amuñ benn ressource boo xam ne nii mooy dugal si alal ci biir commune bi loo doonul fonds de concours fonds de dotation ak lempo ak partenaires yi nga xam ne ñu ngi jàppale kon loolu laa bëggoon waa Doubel ñi sensibiliser leen ci ak waa commune Fass Cekkeen yëpp ñi xam li xam mooy lan ñi xam ñi ñuy ñooy lan ak lan la ñuy loolu la amoon li ma wax maa ngi leen sant di la gërëm su ma juumee nag ngeen baal maa xam loolu moo ci doon su ma sama xol na moo tax man mu gën a ñàkk a wax jërë ngeen jëf maa leen di nuyu kenn ku nekk ak santam ñu ngi nuyu borom dëkk ñu tedd ñu fi ñëw tey nii di leen balu xàq nag te di leen balu xàq bu baax eh. di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole baal ah di ñaan ci di am kontaan te mbégte bu baax ci honorable dien euh gi bi mu def tay am nañ ci contente bu baax surtout nag ñun jigéen du bëri ndax pour pour mi jaxlo na ñëpp jaxlo na guni jaxal na mag jaxal na képp ku fee jaar kon nak buñ xamé ko xamné mi ngi dik diñ ci si ñu ngi ko ci sante bu baax diko ci gëreum di dalé ci cant bi nak ki nga xamné ne doomi dëkk bi nek suñu juddu rew muy mohammed gay xam wax dëgg yalla guddee bëccëg ak sama kala gay sa ñu xulé ba dem jaar ko na ko xuntuma ni xuntuma na yoonu ni waye mbir yu état mo demé hunu bëri na bu mu koy bëggé te yalla duko dogal té la ko yalla dogal kon ñing ci sant yalla bu baax di sant ñi nga xamné conseil yi hand ak ñom yëpp ñom asana ñom ñëpp daal ñi leen sant di leen di gërëm xamné ne ñëpp ci japp duggu nañ ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ci xegg ci alhamdullilah rabbil alamin bu ci yëg benn gàllankoor xam yalla nañ ci yalla lafal ciat sama kaddu daal fofu la ko xamné ma nga sante sant ñëpp di ba gars ne won inshallah bu soob yalla dañ ci taxaw mais ñi ñi taxutoon askanu ñi gëm loolu mais comme niko khadisar waxe fi waxee mbir mi da ngay bëgg mais fek dogal bi euh du mëna sot yalla moy dogal do mo adama day lu rek kon nak mbir mi su ñëwé tay ah ñu ñun ñun ñëpp dañu and euh, am mbégte ak contenté di ci di ci di ci di ci di ci di ko di ko rafetlu kon nak wax di gal kàddu gi fofu lay am parce que programme yu mon pour wax di gal wax ci kon mangi ngi nuyu ñop di sante ñop di gërëm ñop am dafa lan taw leleg pour ñu dem takk suñu sareet pour ñu jàll ci xur wi léeg-léeg duñ mën a xëy kon nag tey ci tey su lii nar a am dañuy def def lu rafetlu ko bu baax di sant maire di sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaawam di ko liggéey surtout ki nga xam ne ni mooy absent maire bi di Mamadou Gaye dëkk ak ñun fii ci Doubel euh, ñi ngi am mbégte bu baax ci moom wax dëgg yàlla ñun liñ war a def mooy topp ci gannaawam ñun waa Doubel wala commune Fass seken jappalé ko gungé ko ba li nga xamni ni lim sombi yalla man ko ci jappalé mom ak euh, député maire El Hadj Mohamed Dieng euh, lool dal la amone li nga xamni ni nii lañ ci wax waye dal am nañ kontante bu baax ci mbir mi am nañ ci kontante bu baax parce que suñ xalé yi wax dëgg yalla neexul bel neexul comme ni ko Khady sar suñ amutone farlu konoon man ni dess ci ndox mi farlu motax yalla jappalé ñu ci kon nak ñu ngi contane bu baax am mbégte waaw. di jital ci nuyu imam ak borom dekk di nuyu gan ñi nga ño baye ko ku ngel ñew fi ci gédé euh di len sante bu baax di am contante te itam ci dajé bi ndax mbir mi def liggéey bo xamne dafa upp doolé dekk bi kon buñ ci amé ndimbal dañu sante yalla ci lolu bu baaxa baaxa baax en même temps ñi ngi sante yalla ñi ngi sante itam ñi nga xamne ñoo bañ mëna am li ndax du eh, mbir moo xam ne mbir mu tuuti la ndax ku gis fee xam ne dëkk bi taxaw nañ ci bataay yi mais seen doole fii la yem buñ gisee ku leen ëpp doole nag ñëw di leen jàppale ña dox loola ba mbir mi am ñooñu daañu leen sant gërëm leen kooku nag kenn rawu ca El Hadj Mohamed Dieng ak ki nga xam ne mooy mu Mohamed Gueye mi nga xam ne moo ko nekkal ci dëkk bi ak conseil ak yeneen conseil yi ngi xam ne ñu ci biir commune bi di leen jàppale. la xaqat di leen baal xaq dëkk bi ñun ñu ci taxam ci histoire am nga xam ne ñun moom luñ fekkee maanaam lépp loo xam ne ni enenteem day yokk ak bokk fi lañ ko fekk te dëkk bi ñun ki ñu fekk moom mu moomoon ko muy Omar sàll Omar Xaali Sall moo moomoon dëkk bi gannaaw bu mu dëddoo lañ ko jox ku ñuy wax ba Muudu Sall Bay Muudu Sall gannaaw bu mu dëddoo lañ ko jox ku ñuy wax Balaaji Ibrahima gannaaw booy laja béykee bi dédoo man Mouhamed Kébé mi ma yor dëkk bi bokk fi samay bokk boobu luñ ma dëkk bi ma bokk ak ñoom ñu nekk fi ci jàmm ak sutura loolu mooy li nga xam ne moom laa xam ci muy kiiw dëkk bi li xam ne moom laa ciy teg moo di ne dëkk xur bu kenn ku ne xam na ne dëkk xur dana am jafe-jafe dana am jafe-jafe dem ak dikk dana am jafe-jafe dëkkuwaay am jafe tool loolu yëpp mu ngi nekk ci histoire dëkk bi kon léegi buñ demee ba yàlla xettali ñu boole ñu koo xam ne kii nii mun mënu ñuy dimbale ndax kunti mii nii liñ ci ñàkk rek kenn mënu la ci ciment nu mu toll ak xeer ndax boo ko yundoo gis nga xeer yi ci def lépp ci wàllu dëkk bi la lépp na déggoo ak manko ak bokk pas-pas moo tax ñu mun koy defar ba muntu continuer kon léegi bu ñëwee bi fii yàlla dimbali ñu ñu am bunt boo xam ne bii nii mun mënuñ ko koy deferee mu jaar ci loxol maire alaaji Mohamed Dieng mu jaar si loxol Mohamed Gaye mu jaar si loxol Babou Dieng ak peuple bi nga xam ñu ngi topp seen kaw ak kilifa yi ci dëkk bi di ñaan ba yàlla jàppale ñu léegi nag kontaan boobu ñu kontaan ñu ñëpp ñu ngi gërëm alaaji Mohamed Dieng ñi ngi gërëm Mohamed Gaye ñi ngi gërëm kilifa yi dëkk bi ndax jàpp nañ course ak xale dëkk bi nga xam ne buñ ne nekkee si xur xunti kenn ku ne bàyyi la ngay def ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant moom Hadj Mohamed Dieng mënuñu wax leen ci moom lu dul ne saa yu ma demee ne suñu continue mu ne ma maa ci am nu yoon ba xam damaa dem mënu ma tooma dama rusu gis ndek kuntu ma ko tooma saa yu ko yàlla dogale mu mat ba yàlla dogal ko ba keroog ma fa dee mënu ma yaakaar naa ne am naa gars yi daa ñëw fan yii bu soobee yàlla yàlla dogal waxam boobu kuntu mi nag moom jaaxal ñuy wax dëkk bi ñun. wante nag ki koy defit jaaxal na ko ndax ñu ngi koy wax lool ñu ci sàkk mooy ngeen ñaanal ñu parce que ñoom fu ñu toll ñu ma laaj sama xalaat may leen lax ne ñi ñaan ci yàlla ñoom it liggéey bi ne leen ko yàlla yombalal te buñ ci am benn jafe-jafe ñooy tam ndax eh, dafa ñu bokk jaaxal ñu ñëpp xañ na jaaxaloon nañ ñu waa dëkk bi waaye ñun suñu jaaxle ñoom wàcc ci ñi ko war a liggéey kon ñoom ñu ngi ñaan yal na yàlla yombalal leen ko bu ngeen demee ngeen jotal nañu ne du bél du góor du jigéen ñëpp bég nañ am nañ contenté am nañ yaakar ci né lepp li nga xamné ne nañ ko fi dañ ko def nañ ko bëggé té nañ ko bëggé yépp moy mu baax ñu dal ci bismillah jaaral ci rabbil alamin yalla bu ci yalla am ben tot la wa alaykum wa rahmatullah

di ñu xaar ñu sant yàlla ci loolu <clears throat> ndax dañ fi ñëwoon tey ngir benn liggéey boo xam ne fas nañ yéen a amal ko fii ci Doubel liggéey boobu nag comme ni ko ñi fi jaar waxee rek danañ ci gën a leeral tuuti maanaam day liggéey boo xam ne xam nga komin dafa am nu muy demee dafa am ay principe yoo xam ne dañ koy tuddee compétence transférée maanaam état daf koo jël jébbal ko collectivité locale yi ñoom ñu koy def ci seen gafaka mais mu am yoo xam ne itam dafa jéggi dayoo gafaka commune muy ay réalisation yoo xam ne dafay war a am ci biir commune te commune bi du ko mun a def ci gafakaam yooyu nag état du Sénégal dafa tëral ay politique yoo xam ne ni dafa am ay secteurs yu mu samp war a am ay démarches yu ñuy mën a def ba dem yi ci koppar yooyu ngir mën a def ngir mën a ñëw def seeni réalisation léegi nag dafa bokk ci loolu ay organisation yu demee ni euh, FERA bi nga xam ne tey moo fas yéene liggéey liggéeyal commune Fass Cekkeen xur wi nga xam ne moo nekk Doubel te muy ñetti programme mu am Doubel am Njaaykounda am Médina yooyu yëpp nag ginnaaw boo xamee ne maire jóg na sol dalam def ay démarches dem seeti waa FERA muy partenaire bi nga xam ne ñoo ñu wara a liggéeyal liggéey bi di négocier ak ñoom ñuy def li ñu war a def yëpp conditions yi nga xam ne moom lañu ñu war a remplir yëpp ñu remplir ko ba yàlla def ñu accepté ñu ne ñu daañ ñu defaral xur wi muy xuru Dubel ak bu Njaaykounda ak bu Minam vraiment ñu am ci satisfaction bu baax a baax a baax ñoom nag seen liggéey dañuy def li ñuy tuddee code de marché maanaam tey bu ñu waree liggéey dañuy def appe d'offre mu am ay candidats yoo xam ne. ñoom dañuy jóg taxaw ne liggéey bii nga xam ne moom la partenaire bi war a def ñun mun nañ koo liggéey mais ñu dañu leen di tëralal ay conditions ne leen liggéey bi nii lay demee ak nii ak nii. léegi nag candidats yi nga xam ne ñooy déposé ñoom kenn ku ci nekk da ngay wane ne mën ngaa remplir critères yi nga xam ne moom lañ la wax ne ku bëgg ñu jox liggéey bi critères yi ngay remplir. yàlla dimbale ñu comme ni ko El Hadj Bassirou Niang waxee ñu am doom joo xam ne ci commune bi la dëkk nekk doomu commune Fass Cekkeen yàlla def mu bokkoon ci joŋante bi. mais yàlla def mu génn gagné marché bi war koo liggéey muy Babou Khady Dieng moom moo koy liggéey à travers de FERA maanaam FERA ñoo ko koy liggéeyloo mais nag commune Fass Cekkeen la koy liggéeyal boo xam ne maire jog na dox ko ngir mën a jot yi ci fonds yi nga xam ne moom laa leen wax léegi nga xam ne état daf koy teg ngir communes yi war cee man a bénéficier wu waaye communes yu bari danañ ci ñàkk a bénéficier wu ngir lan ngir mën a ñàkk xam fan la ñuy war a mën a jaar ba mën a jot ci koppar yooyu parce que nag commune li muy am ci bit seem rek surtout commune bu mel ni commune Fass Cekkeen mënut ci réaliser yenn réalisation yi parce que tey lu demee ni defar xur wi ay millions yu bari lay jël lu demee ni jëlee rang bi Fass Cekkeen mu ñëw jaar fii dem ba frontière te ñu ngi ci parce que comme ñu defee woon ay démarches ci xur wi waxtaan ci ak su préfet waxtaan ci ak préfet fépp fu ñu war a bind kayit ñu bind fa kayit fu ñu ko war a yóbbu ñu yóbbu ko fa ba yàlla def tey lii ñu mën ko réaliser noonu lañ def commencé itam aussi di def ay jéego ngir rang-rang bii ngeen gis mu mën a ñëw continuer dem ba Frontière te yaakaar naa feeraa ñooy faral di defar rang-rang yi te bu ñëwee fii liggéey fi liggéey bu mucc ayib daañ am contenté aussi daañ gën a am daañ gën a am seken continuer dem Frontière kon loolu ñu ngi ci li ma ci euh, dolli rek mooy di ñaan kilifa dëkk bi ñu dollil ñu ci ñaan parce que nag mbir mi lum ak a demee ñaan moo ñu ciy jàppale ñaan mooy bopp bi mooy cat li ñu ñu ngi leen di sàkku daal ngeen ñaanal ñi balaa déwén heure bii niñ taxawee fii tey ne ñu ngi préparé pour defar xur wii ñu taxaw fi ne ranran bi jaar na fi continuer na dem ba dem ba dem ba dem ba frontière leneen li ma ciy lancé rek bëgg ko ci dolli mooy euh, fan yi yëpp maa ngi woon Dakar ñu nekkoon fi ci benn atelier boo xam ne dañ doon waxtaanee lu jëm ci mbirum ndox ak courant pour gën a dalal xelu askan wi wan la ne commune Fass Cekkeen muy guddi muy bëccëg maire bi ak équipe am ñu ngi def ay démarches heure bu nekk ngir fexe ba lépp loo xam ne dafay soqali commune Fass Cekkeen ci wàllu koom-koom mais ci wàllu lépp loo xam ne itam aussi daf koy taaral ñu ngi woon dakaar amoon fa atelier ak ay ministre yu ñu fa doon rencontré ngir lan xool ba xam nan la ñuy def ba commune bu nekk la nga xam ne moo nekk priorité am ci wàllu ndox muy dëkk yi nga xam ne ndox dafa xaw a manqué ñu fexe ba xam ko man leen a man leen a yokk ndox ba nga xam ne ndox dootu fa manqué xool itam aussi dëkk yi nga xam ne ñoo gën a nekk priorité ci courant ñu cité leen te du Doubel gii ci dëkk yi nekk priorité ci courant bi ci la bokk parce que courant bi war na fi jaar dem ba frontière semaine bi passé ci loolu lañ nekkoon yaakaar naa yéen ñi ma bokk a nekk ci dëkk bi fan yi yëpp gisu leen ma fi ci loolu lañ nekkoon kon ñu xam ne équipe municipale bi ak maire ki nga xam ne moo jiite équipe bi vraiment guddeeg bëccëg commune Fass Thiékène bokk ci commune yi nga xam ne dañ koy gën a ràññee ci biir Sénégal kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax man en tant que doomu Doubel bu ñëwee ba fii vraiment ñu koy amalee sama dëkk loolu kontaan naa ci mais sant naa ci te aussi gërëm naa ci ginnaaw boo xamee ne def nañ ci li ñu ci war a def yàlla dimbale ñu ba tey mu réussir ñu war a commencer travaux yi xamal leen daal ne liggéey bi nii la demee maire moo ci engagé wu ànd ci ak ñi mu ci war a àndal def ci ay yitte yu mat sëkk fa mu war a dem mu dem fa lim ci war a dox mu dox ko ci ba yàlla sottal ko liggéey bi itam aussi bi mu ñëwee yàlla jaarale ko ci sunu doom sunu mbokk sunu xarit sunu volere mu war koo liggéey ñu am yaakaar ne liggéey bi dana mucc ayib parce que kuy defaral sa bopp da defar lu baax te nag ku dem foofu ku ngeen soose baaw xadi moo ko gañe woon ba mu ko liggéeyee liggéey bu mucc ayib la kon ñu am yaakaar ne fii itam bu ko gañee dana ko war a mën a liggéey liggéey bu mucc ayib kon Matar lii laa amoon ci ay kàddu yu ma doon jot euh, montage bi ñaata la montage bu ñu amee li ñu gënal parce que boo gisee entrepreneur bi bi mu gañee bi mu gañee bi mu gañee marché bi mu ne dubbel lay njëkkee si sa parce que dubbel moo gën a xaw a enclavé ci yeneen dëkk yi te comme dañoo dëgg man nawet bëgg nañ travaux yëpp au daal bala moo taw fekk yëpp pare na muy dubbel Njaay Kunda ak Medina ndax nag jafe-jafe yi ñu doon rencontré ci biir nawet moom la ñuy bañ nawet fekk ñu fi vraiment ñu koy dund te ku ne xam ne fii yoon bii ngay gis nii euh, ba gàlleku euh, yi frontière ñëpp seen oto yi fii la ñuy jaar moo tax ba yoon bi bu ñu ko defaree vraiment dafay nekk avantage bu rëy rëy rëy pas dëkk bi rek mais yeneen oto yi nga xam ne ñu ngi fiy jaar heure bu nekk waaw enveloppe bi euh, moom vraiment bëgguma ci sori parce que bëgguma ci xóot lool ndax euh, muy indi yeneen kii mais en tout cas daal xam nañ ne ay millions yu bari la ay millions yu baree baree bari moo war a defar ñetti points yi waaw